Euh, ci li ay di jambat moy euh, saax-saaxee bi ñu saax-saaxee Sénégal mm-hmm. té ñun ñu am lu ci defoon ci reportage ak open press hein, euh, sur le terrain ba wone réellement loo xam ne ñu bëri njortuñu ko euh don na ma gënal nak arrêté bi concerné toutes les zones stratégiques et non littoral bi kessé parce que man li ma littoral bi le concerné mm-hmm ba dafa lalu ci yërmande walla raison parce que nenañu dañuy set li nga xamné légal na walla lu ñu régulariser ñu régulariser ko mm-hmm. li nga xamné ni légalul ñu jël ci ay mesures ba nopi xol ci yan critères lañuy occuper littoral bi kon dafa melni occupation littoral bi sax dàqatuñ ko je comprendre et communiquer parce que lire nako bu bax loolu la ci comprendre. kon euh, je crois que yermande bu bëri la de parce que littoral. ñun de dañ ci am droit. vue sur mer dañ ci am droit accès à la mer dañ ci am droit légui nak ñu ngi xaar commission bobu euh, nan lay liggéey parce que assemblée mu ngi ci HCCT mu ngi ci euh, ay yenn ministère ñu ngi ci mm-hmm. euh, bëri na daal ay kuréel yu ci nekk. d'accord donc ñu ngi xool. Mm-hmm. lan la ñuy déposer comme conclusion. d'accord ak yan mesure la ñuy jël. d'accord mais dafa mel ne y a des intérêts qui vont être sauvegardés parce que. Euh, lolu le communiqué bi wax daanaka parce qu'il faut savoir lire entre les lignes. il faut savoir lire entre les lignes c'est vrai mais bon euh, comme ni nga ko tout à l'heure dafa melni yermandé yërmande lalu na ci mais est-ce que duñu tëb <coughs> peut-être yermandé parce que mën nañ né ñom li len fal choono bi askan bi yek la. ba tax mm-hmm. ñu fal len ci li nga xamné mom len far ci pourcentage bu am doole sha mm-hmm. allah. Mm-hmm. bo xamante amana amaana raaroon koy gis ñu fal ko ki nga xamné modi président bu ysp basir Bassirou Diomaye Diakhar Faye waxanteeg askan bi lu leer tënk ko ci ay cadre te nee dina ko def. donc man dama jàpp ni peut-être avec autorisation pour ñu construire ci mbirum littoral bi peut-être mooy jafel li nga xamante ne moo di liggéey bi ba tax ki nga xam ne moo di premier ministre bi def arrêté bi wax ci lim ci wax. waaw mais avant arrêté bi avant muy nekk premier ministre. gis ngeen ko ci benn vidéo ci tefes bi. muy joxoñ immeuble yi ñu construire ci front de mer bi. amoon sama position man. ni lii de conseil wu ma kenn mu ciy def ay milliards am parce que si def ay milliards am ëllëg hmm. alors je crois que nous mu mhm. euh, au contact des réalités de gouvernance mhm. lan nous donne position lan nous donne action par rapport à cette occupation sauvage du mhm. littoral. parce que le littoral cest à au-delà du littoral fils Dakar y a ay zones pour privilégiés. pour bourgeois pour milliardaires. et des zones pour pour pour pauvres. Nous, la dans la banlieue ay Tivaouane pel ay ay Kounoun, ay Kounoune ay Fall. on nous aménage là-bas ay Bambilor 100 000 logements il faut presque hein alors Ngor Almadi Yof, Corniche Plateau c'est pour eux. Parce que si on avez des tabac. on ne peut pas tabac. 10 étages, 18 étages, avec sous-sol Il y a des milliards, on ne peut pas tabac. Nous ne appartement parce que l'appartement a des centaines de millions de Il y a 300 millions de Ou 200 millions de dollars. Pour les locations, il y a des millions de Il y a 2 millions de C'est pour une classe spécifique une classe définie.

Euh, mais euh, tout à l'heure euh, ñu ngi wax ci li nga bi ba mhm. parce que gis nañu nga wax sank jëm construction bi que avant que yotu comme mhm. tout à l'heure li nga wax que ni na ci littoral bi wax ni mhm. nous tojal fi nga tabax parce que que du avons vu yeneen kilifa yu doon naan ñi nga ñoo di opposants yi dañu xamul lan responsabilité wax bi day yomb mais boo ca mm-hmm. xasee ba toog jëf li nga bëggoon jëf day jafe mm-hmm. loolu est-ce que lu dëggu la d'or wala lu ñu mën a sukkandiku la pour mën a euh, justifier li nga xam ne moo di yenn ci justification yi nga xam ne euh, am na ko ci arrêté yi naka noonu ci reddition des comptes ba nga xamante ne askan bi ba tey ñu ngi toog di xaar affaire bi mel ni lu xaw a yéex tuuti. waaw xam nga euh, réalité pouvoir ak opposition dafay différent. Mm-hmm. Euh, yéexaay bi nag euh, man jàppeewu ma ni looloo tax mais je je pense que nguur gi mu ngi doog def un mois. Mm-hmm. gis nga direction yu bari ba légui changé guñ mm-hmm. euh, euh premier ministre defagul discours déclaration de politique générale bi mu war def assemblée donc tegaguñu sen plan ñu ngi nek di liggéey ci lool parce que gis ngeen demoon nañ fi banque mondiale dem nañ fi seet suñu voisins yeeg yooyu nga xam ne dañu seq koom te ki ci njëkk muy Mauritanie mooy plateforme bi ma leen woon. suñu ñoo ko seq. Euh, je sais pas pourquoi dem guñu Mali ba léegi. Mm-hmm. mais ñoom ñu ngi ci euh, euh, defaru. donc nañ leen may temps rek hein, te di am yaakaar ni dañu danañu wàccoo ak seen i liggéey parce que dañu am une opinion publique bien formée par l'information. Mm. xam nga la formation de l'opinion publique par l'information. Mm. ñun moom la ñuy def. c'est-à-dire nit ki lu xamul du mais boo ko ay cités yoo xam ne ay immeuble immeuble dina ko a boo ko wanee ay plateforme ay tête de puits yoo ni ngi millions nous ngi déclaré 14 millions et commencé guñu dañu ah lii de war nañ ko fay ministre bi bu dana jëm dem direction de l'énergie laaj waa Cosmos bi xool xool contrat yi xool clause yi etc... et cetera xam nga foofu lañ mhm. donc on a une opinion qui va être très exigeante te loolu lu baax la pour Sénégal parce que dañuy a un gouvernement. Mhm. qui va faire que travailler. parce que dañuy am une pression mhm. et une obligation de de de résultat qui les poussera à ne faire que travailler.

te loolu moom def naa euh, bés buñ euh, dañuy interpeller directement le procureur. ah bon. ah oui parce que hmm. amul ay enquête ak ay lu leer lay doon loo xam je crois que procureur day war a mën a autosaisir autosaisir nu procureur bu moom demander ci dossier en conclusion parce que. Mhm. dafa leer trop et. day wane rek ni nguur gi fi nekkoon. xalaatuñu woon dañ fi jógee. dañu programme woon pour des fi. Ah, parce que yenn yenn yenn njombe yu yomba jàpp yi mu mel ni Bamba Fall bi yokk ay ay quartier loolu nag nga koy noo koy lijjantee. Amadou Ba ñëw na de. waaw d' accord. ñibbisi na de. ñibbisi na ñoom ñëpp dañu am ay. dossier ak xel bu dal ak retaan yëg. mais non moom xam nga moom. <laughs> Euh, gis nga li may wax nguur gi. mais nag dossier yi épinglé guñ ko benn yoon nag. loo ci xam. ah gisaguñ ñu publier ko. premier ministre. Hmm, Amadou Ba ministre des finance hmm. gis nga lépp luy mbirum suuf. Hmm. ministre de finance mun cee génn. d'accord lépp luy mbirum contrat minier pétrolier ministre de finance mun cee génn. waaw ah, lu tax génnul. lan génnul tur bi. dégg guma ko de. waaw di nga ko dégg. Hmm. di nga ko dégg. parce que loolu boo ko waxee rek sama xel bi li tax dégguma ko te gisaguma ko aussi sama xel day dem total ci yërmande bi ngay wax yow yow est-ce que est-ce que dégg nga Ablaye Daouda Diallo turam génn. non dégguma ko. mais Ablaye Daouda Diallo am na dossier. ah bon. ah contrat 45 milliards d'armement yi 45 milliards 300. moom moo signé fausse facture moo ko signé. trésorier général mos nga ko dégg mais kooku <laughs> dañ ko war a woo. Hmm. chaque année mu yëkëti suñu 9 milliards 60 millions fay ko benn bandi ba léegi nii ci nguuru ci nguuru ci nguuru euh, Diomaye fay bi année bu jot bu ñuy voté waat budget danañu teq 9 milliards 60 millions jox ko petit boubé benn vendeur d'art ah Diomaye nag fa pendant 5 ans. ah Diomaye pendant pendant 4 ans 4 ans moo ci des. suñu président joxe nañu benn. suñu jeune président bi faaw mu xoolaat bu baax léegi léegi donc je veux dire euh, ministre ministre des finances. Mhm. mënul échapper ci scandale yu am ci réew. d'accord. léegi moom dafa dem Paris dal ci wetu Élysée wetu palais ba ñu koy yëpp di ko xelal ak sol di ko waajal. Mm-hmm. waaj bi surtout. waaw léegi moom ñëw na moo tax may wax nguur gii nañu baral li ñuy def parce que ñii bu ñu leen bàyyee ñu defarwaat ay milliards yi milliards dañu yor te dañu am gannaaw ci tubaab yi parce que dafa bëri ñu seen intérêt nekk en Mhm. donc bari na ay milliardaires yo xamni sen intérêt dafa nek en jeu. waaw parce que amna sax ñu si ay taskatu xibar samay naataango. Mhm. yo xamantene dem nañ sax bané ne reddition des comptes bi don na lo xamantene amna am ba jéggi fiko askan bi don xaré en fait. waaw c'est-à-dire euh, les gens sont pressés même moi je suis pressé parce que euh, ku ni ñi nga xam rapport définitif lañu am rapport yi au moins on doit pouvoir les ku mel ni Bamba Fall par exemple amul lu muy xaar loolu dafa lèr hein ak le maire de Tambacounda la boo xam ne dafa defoon benn du yëg nga affaire boobu benn benn séminaire xaw ma xaw ma lan la doon organiser quatre-vingt-une personnes mu jënd ay ay ay ay cent et quelques kilos ceeb ak ay xaw ma surfacturé ay xam nga yoo xam ni du yëfu du yëfu xam-xam quoi mm-hmm. loo xam ni dafa dafa leer la ay ay ay yooyu sax au moins mm-hmm. ak rapport Covid 19 bi nga xam ne dafa dafa leeral lépp lépp lépp lépp mais ñooñu lu ñuy xaar. Ah, Mansour Faye lu muy xaar Mbaye Niang lu muy xaar. yërmande nga ci de dafa mel ni. Farba lu muy xaar ñeneen ñi lu ñuy xaar. Hmm. Mamour Diallo lu muy ñooñu seen dossier dafa leer. ah yërmande nga ci de daa ni. Hmm. en tout cas euh, peut-être que yéex la rek mais dégg naa euh, mon frère Moustapha Sarré porte-parole du gouvernement. Hmm. nii nañu rassuré wu que ñi rapport yu épinglé. te ñu war a rendre compte. Euh, justice dana def liggéey. loolu la wax waaw donc loolu. man gëm naa ko. Mhm. donc ce xam nga ñun nag bu ñu nekkul dans le secret de ce qu'ils font. Mhm. ñun duñu xam. ñun li ñu bëgg rek mooy résultat. Mhm. mais ñoom la ñuy def pour résultat am. xëy na ci lañu ñu communiqué wul wala ci la ñu warul a communiqué. moo tax ñun xamuñu ko. dëgg la moo tax du ñu mën a bokk discours. d'accord moo tax pouvoir ak euh, ku nekkul ci pouvoir tamit bëgguma wax opposition parce que am na ñu nekkul ci pouvoir te duñu opposition euh, pouvoir ak ku nekkul ci pouvoir mun mënuñu bokk ligne quoi mënuñu bokk ligne parce que duñu bokk niveau d'information ah xanaa ñu am mm. njort bu rafet que ni rek am naa njort bu rafet mais mais yàkkamti naa loolu mais quand même je je pense mm-hmm. que Macky war ñu ko woon bàyyi mu dem quoi loolu la ñëpp di ah, ñoom Mabey Niang war ñu leen woon bàyyi ñu génn dëkk bi ay mm. Lat Diop mm. ay Cheikh Omar Anne ils sont tous partis hein ils sont tous partis et continuent de partir ils passent par la Gambie. yaakaar nga ni en fait bu euh, peut-être bu leen rapport yi doonte que au-delà de épingler parce que parfois mën nañ la épingler ci rapport tekk yow takkee woo mais yaakaar nga ni. déedéet attends attends précision foofu bul dem de. Mm-hmm. waaw bu ñu la épingler ci rapport. Mm-hmm. mooy tax nga. nga parce que bu ñu nee coro. yow ñu ngi lay jiiñ ni big bii. Mm-hmm. yow 1000 francs nga déclaré nga ko jëndee. nga ko jëndee voilà. léegi justifier lan moo tax big bi jar 1000 francs léegi boo nee big bi c'est en argent moi tax mu 1000 francs ñu a ah ñu big bit c'est en argent ah oui et puis plume le marque euh, Waterloo donc c'est vrai mën na sax 1000 francs mhm. mais bu fekkee ni bu 100 francs bi bi bi jaay boutique yi la nga 1000 francs ko double prix bi neuf fois. léegi yow tontu que ma mhm. man xam naa ni euh, su ma defee demande de renseignement de prix euh, big bi 100 mhm. francs lay jar. yow 1000 francs nga bind. Légi, ce mhm. épinglé. Mhm. légui yow japp na la. Mhm. dossier procureur mais bu euh, big marque Waterloo bu argent tout ça. ma big bi jar 1000 francs yow sa tour mu ci rapport bi. mais ken ken épinglé wu la épinglé moy japp japp ni nañ la nga tontu tontu doyul enquêteur bi enquêteur bi def na rapport dañ ko war a toppee lii. yóbbu ko procureur sinon du àgg ci procureur. Mhm. parce que su fekkee ni sa big bi 1000 francs lay jar prouvé nga ko c'est en argent. Mhm. mais dossier boobu du nga ko yóbbu procureur. mais jamono yi ñi génn réew mi bu fekkee ni li ngay wax nii leer na ni que ni takkee nañu laal nañ ña nga biir naka la ñu mën a def pour indiwaat leen ci réew mi. Ah. yoon dal ci seen kaw. dana compliqué de surtout que ñoom ñëpp dañu am ay double nationalité moo ci moo ci moo ci difficulté c'est-à-dire dañu war a woon génn dañu mu ñëwee daf ni waa PDS de

parce que gis nañu ay journalistes sur Sen TV dama leen di tudd ah, di def euh, di def euh, propagande naan ay mag dàmbooj li ñuy wax amul gis nga fi ñu demoon noonu ñun dañu am ay tur ñi ñu tax a jóg du ñi nga dañu am seen kër ci anam bu leew bi ko tabax ak seen doole mm-hmm. ñun ay homme politique yo xam dañu seddo fofu jaay ko ay doomu président ay jabaru président ay président ay farbangom ay responsable yoo xam ne commissaire de police ñoo xam dañ fa am ñu tax a ba ay takk ñu mënut a soupçonné sax ci descos dëgg laa ak du dëgg danañ dellu ci site ba génne tuur yi ñu xam ni ñuy junj ak ñuy ciblé ñan la wax bi leer waaw parce que du ñu nangu mukk mukk mukk ñuy oyofal suñu kàddu wala suñu liggéey parce que bon visé wuñ ci ñi nga xam ne dañu am seen kër honnêtement mais bu fekkee ni ñun dañoo bëgg présenté comme ñoo xam ne dañuy wax lu leen leerul ñu won leen ni li ñuy wax daf ñu leer ñi rek incha allah fan yi tamit loolu bokk na ci li ñu leen di. voilà hmm. comme ni mu ko waxee léegi tàggoor ñu lay seetaan balaa ñoo jeexal. tàggoo naa loolu la tàggoo pare <laughs> <laughs> waaw muy noonu kon uh-huh. ñoo ko déggandoo am mbégte bu baax a baax jàkkaarloo ak yow naan la namoon nañ la et kontaan nañ ci li nga xam ne moom nga ñu indil fële jëlee woon ko fële ca Ndar mu ngi noonu mbokk internet yu Kéwoulo TV li lañ leen jagleel woon ci seen émission survol de l' comme comme nuñ koy defee à fois te am ah mbégte bu euh, ngandee ngande di jàkkaarloo ak yéen comme nu ngeen koy comme nu ngeen ko euh, bëggee di leen euh, jox dig daje ñun ak Clédor Sène ak ak ñeneen yeneen file ci biir euh, Kéwoulo TV naan leen woy leen di ànd ak ñun ci abone bi like ak partage li nga xamante ne moom la ñuy def ndax yéen yéen a tax ñu koy def dig daje ba beneen yoon incha allah jaajëf. ya silola iye kambenka vodum